léegi lépp mu ngi ci loxo procureur ndax nag parquet bi mën na jël réquisitoire aux fins d'incarcération saa yu ko bëggee jox ko takk der yi ñu dem teg loxo kii di Ousmane Sonko leader bu Pastef nag ci benn fan ci weeru juin lañ ko teg daan topp ko ci li jëm ci wàllu corruption de la jeunesse waaye nag ba ba léegi mu ngi ca liberté li ñu doon xaar nag mu di attekat bi fësal décision ba bu ñu sukkandikoo ci juriñ gi dénk lépp li jëm ci wàllu atte bi nga xam ne daal dina ci dellu keroog bu gouvernement bi di jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi. suñu suñu justice dogalee ba pare dañuy xaar dogal bi mooy décision bi d'abord mu disponible. ci benn fan jàpp ñetti fan ci weeru juin nag. ay jàmmarloo yu metti amoon na fi diggante takk der yi ak ay manifestants yoo xam ne mu ngi doon naqarlu daan bi nga xam ne teg nañ ko kii di Ousmane Sonko mu nekkoon sax ay jàmmarloo yoo xam ne lu toll ci fukki doomu aadama ak juróom-benn daan nañ ci ñàkk seen bakkan mu amoon itam ay yàqu-yàqu yu bëri.